asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci biir VIP people muy information bu yees ginnaaw rek gouvernement bi ba ñu génnee def li nga xam ne rek moom mooy conférence de presse daal di indi leeral askan bi ci mbir mi naka la demee fan yi ñu génn ci ay manifestation waaye ñëw tam ci li nga xamante ni rek moom moo waral ñu barricade kër Ousmane Sonko ak procès bi ak verdict bi nga xamante ni dañ koo joxe mu jur li nga xamante ni rek moom mooy coow waaye tontu bi nag tardewul benn yoon. doon ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa Pastef ki nga xam ne rek moom mooy maître Ngagne Demba Touré di greffier moom tamit génn na démb jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal indi moom tamit ay leeral waaye nag leeral yi dafa mel ni dafa def dafa démentir ki nga xamante rek moom mooy ministre de la justice bi nga xamante ni rek moom mooy Ismaïla Madior Fall ginnaaw bi mu waxee ni rek ci ordonnance de renvoi bi li nga xamante ni rek moom mooy corruption de la jeunesse bi dañ ko cee prévoiroon moom dëgg ba ñu xëyee daal tey ci suba ci la gis information bi nga xamante ni rek moom moo wër ci réseaux sociaux bi moom garde des sceaux bi di ministre de la justice Ismaïla major Fall di patron ki nga xamante ni rek moom mooy Ngagne Demba Touré décision ci article 30 32 daal di affecté ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Ngagne Demba Touré mi nga xamante ni rek moom moo nekkoon tribunal de grande instance hors classe bu Dakar daal di koy affecté fi nga xamante ni rek moom tribunal de grande instance bu Matam moom Ngagne Demba Touré daal ci gàttal moom ministre de la justice bi daal daal dina koy jëlee daxaar yóbbu ko fi nga xamante ni rek moom mooy Matam